C'est le professeur Celestino Award de l'Académie internationale de cytologie mooy lépp lu nga xam ne ci wérgu yaram lay daw day dem ñu ngi ñëw sur le cancer. dem leen li ne rek saay soo juddee wala nga nekk sax sa biir xale bu nekk ci biiru yaayam euh, au niveau du placenta fait 100 molécules chimiques au niveau du, placenta qui entoure l'enfant. C'est-à-dire que déjà l'enfant dans le ventre de sa mère, Tibiru Yayam, le lekke, est déjà contaminé par 100 différentes molécules chimiques épidémiologiquement parlant on a vu aussi que par exemple si njurukaayu góor c'est-à-dire sperme bi nous avant euh, avait euh, un sperme beaucoup plus robuste aujourd'hui 59,3 du spermatozoïde de l'homme dans les bi amutul vitalité bi Amutul, quantité bi qualité parfois am ay nga suñu euh, am chaque année am ñu plus de 15 millions de nouveaux cas de cancer plus de 10 millions de décès liés ci cancer par année té lolu c'est vérifié si dans la médecine légiste le ci autopsie mën ñu ko vérifier mais en Afrique subsaharienne par exemple nous fa teg bët ci parce que quand avons un à hôpital pour diagnostiquer correctement euh, est-ce que kii dafa cancer wala dafa gaañu ci beneen affaire. donc on a le cancer du poumon le cancer de la prostate et le cancer colorectal qui gagne. Au niveau de la femme c'est le cancer du sang. Le deuxième, c'est le cancer du col de l'utérus. ñetteel pas le cancer colorectal oui, l'appareil digestif. troisième dit oui le poumon. Et eh oui, <laughs> les maladies chroniques pulmonaires, ça atteint aussi euh, la femme. Et en cinquième position, on a le cancer de la thyroïde. Et eh oui, on ne s'entend pas, mais c'est ça. Après, maintenant, vous avez tout ce qui est sont les ovaires, hein, endométriose, après petit oesophage estomac après estomac nous qui les reins hein, le foie les reins euh, le pancréas Lui du cancer le du cancer il y quatre ou cinq groupes Amnebi, c'est génétiquement parlant c'est-à-dire que euh, l'eau jëlee wala ci sa pap ou le sa mamatimam, c'est au niveau génétique Benendi, c'est au niveau des infections waaw euh, par exemple il y a des infections on la xam ne amé, ko amee la ay cancer comme euh, le human papillomavirus par exemple ou une euh, hépatite C B mun le joxe ay cancer par exemple Benendi, moi la nutrition lu ngay lec. Coucou, c'est 35% cancer yu c'est par la voie orale le ngay lec. beneen bi le respiré, ngay respirer mooy noyé. cest donc euh, tout le euh, les les ce hein, c'est pas seulement la cigarette hein. attention hein, euh, c'est pas seulement la cigarette mais les am na cuuraay yi nga xam ne da de di mélange cuuraay bi ak yeneen kërëb cancer Belendit, c'est au niveau de la profession. de la profession, euh, le euh, mécanicien, ou le qui produit chimie, mon a un cancer. Benen cause c'est 19%, moi, qui principalement, moi, c'est halat du bris et l'environnement où vous vivez, où nous vivons. Notre couverture de maladies universelles ne couvre pas certains types de cancers. Et c'est très cher, parfois même de ne dépasser un million de francs CFA. Euh, ça c'est tout petit, je dirais même plus. Donc il faut qu'on ait une volonté politique hein, euh, pour mettre l'accent sur la santé, sur la santé publique. Appelons nos autorités à mettre en place un centre d'excellence euh, en sciences médicales, en collaboration avec l'université Anta Diop, mais aussi avec la diaspora, parce que la diaspora a menu taré. Il y a des médecins, il y a des gynécologues, il y a des, banquiers, il y a des investisseurs. Donc, le rôle de la diaspora dans la santé et la santé publique et, la santé économique euh, du Sénégal, par exemple, on voit le rôle que la diaspora est en train de jouer là-dedans. Et euh, aussi, il faut compter sur cette diaspora pour qu'un centre d'excellence puisse se mettre le plus rapidement sur place contre les tumeurs et les cancers. ñu bëri jigéen ñu bëri ñoom dagg ween bi moom moo leen di déranger. ñu dagg sa ween nga ànd ak wér continuer dund sa dundin loolu nga naan def démb bërki démb nga mën def ko nga mën a yar sa njaboot tranquillement dund ak sama borom kër ba lu ma yàlla may ma jël moo ma gën a bàyyi ween boo xam ne dafay ànd ak métti ñu yàq sa yaram yàq sa dund te oo ko kii ngay gën a ñàkk xaalis man loolu moom ko gën a. te feebar bi la vie continue du la tere dund sa dundin du la tere sëy li nga war a sëyee war a sa njaboot ñu la war a toppatoo sa njaboot te ku la ne aussi boo jógee si feebar bi mënatoo juraat si jigéen mënatoo amaat doom mënoo fay wax lu ko neex ndax man mii bi ma jógee sama feebar macha allah mënoo mën a sept ans après mënoo mën a sama amaat doom. nampal naa ko si sama benn ween ba mu saral ko te yëpp sama benn ween bi laa ko defalee terewul ma continuer liggéey sama liggéey terewul ma toppatoo sama borom kër terewul ma toppatoo sama njaboot te sama doom bi ma yor aussi terewul ma ko toppatoo. mainnya gidiyor üşütünün. Feberli kom feberli. Cancer du sein boo si teelee jóg incha allahu rabbi munoo mën a dañ koy faj dafay wér te du la tere dund sa dund munoo la du yàq sa féminité dara peut être wenn la wenn dafa bokk si féminité jigéen dëgg la mais sàcc munoo mën a gën luy jëm sa intimité borom kër munoo munul si yàq dara affaire yi munoo mën a question de bon sens la ak question de responsabilité man je bi si loolu amee rek mu man ci trouve que ne amatul benn problème wax dëgg yàlla. en tout cas je pense que les témoignage de euh, Bignou déglu femme bi yaakaar naa dañ ko war a tiirel suñu chapeau ndaxte courage bi nga euh, pour affronter feebar Barbie, mais surtout pour Wersi ba mën continuer vie am en toute quiétude euh, donc dañ ko war le chapeau applaudir ko mais aussi à sa famille bi nga xamante ñoom ñoo soutenir parce qu'il y a un docteur pour yaakaar comme genre feebar yi soutien rek nga soxla soutien rek nga soxla mhm. soutien psychologique soutien financier mais surtout euh, soutien psychologique parce que mhm. je bi nga cancer C'est beddi la ce mhm. dafa ci tax sax mhm. fait bi de wunni euh, sénégalaise que euh, dépistage bi te loolu balaa may terminer remercier presse sénégalaise parce que suñuy sensibiliser askan bi la presse sénégalaise bi des dugg ci kër yi ba askan bi di dégg niñ ñu leen di yee ni ñuy waxtaanee ak ñoom donc cancer wu ween teel koo gis da ngay faju te mun na am sax kenn du dagg sa ween te suñ ko teelee gis donc 90 pour cent da ngay wër te da ngay dund donc lii ñuy Macky daan xalaat soo amee cancer rek égal faatu déedéet suñ ko gisee tel ko gis parce que mammographie boobu ñuy wax dépistage par la mammographie dafay tax ne dañuy gis ay lésions ay mhm. tumeur de très petite taille mhm. yenn y yi soxla dagg ween bi mhm. tumeur bi rek la ñuy Il yenn saa yi su tuutee de la def sax chimiothérapie suñ ko de def radiothérapie nga des sa donc je ngi ñaan sama surtout ñi am fukki at de la 40 ans 40 ans euh, et plus tous les deux ans ou tous les trois ans nga def une mammographie Lors dafa am solo pour gis les tumeurs de très petite taille. Mm-hmm. léegi jigéen ñi à partir de 20 ans war nga commencer miin sa yaram. Mm-hmm. di def sa autopalpation. Mm-hmm. jigéen soo gisee sa règle ba pare nga tam di seet sa bopp. su nga sa loxo rek. Euh, nga euh, nga diviser sa de manière virtuelle. Euh, en quatre parties. nga jël sa loxo parce que suñu né palper sa wène du né da ngay bës nii. déedéet da ngay tàllal sa ay baram ba mu tàlli. nga uh, wër mhm. uh, ween bi ba mu daj mhm. soo ko dajee nga jël sa loxo def ko ni racler poxotaan bi pour xool mhm. ndax amul caqar soo paree foofu la nga ñëw ci cus bi nga jël sa ñaari baaraam nga bës xool ndax amul lu ci génn parce que suñu cancer yi donj la caxa ak deret bu nga xam ne wala ndox buy génn ci cus bi donc jigéen bu ne war tam di euh, xol yaramam lolou dafa am solo parce que de plus en plus euh, maa ngi parce que ni ñuy jàngalee autopalpation yi jigéen ñi ñu ngi am ay tumeur inférieure à deux centimètres mm-hmm. donc lolou dafa am solo mm-hmm. euh, bu jëk ba ay tumeur yi nga xam ne ne stade 4 la ñu daan gis ah, mhm. malheureusement mais léegi amna jigen yu bari ñu ngi dund ci cancer bi mhm. Mhm. donc li tax cancer yi yokku parce que léegi ragal bi ci nekkatu ci dañuy dem di euh, sensibilisation bi voilà ça, ko wayal fu di waxtaan ak askan bi. Mhm. mais euh, euh, ñu ngi ci suñu terme émission avant ñuy def euh, tour de table pour Tago, peut-être Niska, naka ngeen di def peut-être ba am fonds yi nga xamanteni yeen koy rek daal di am parce que généralement association mo mel non bu ci xaalis rek généralement dañ lay donc bàyyi xel donc yeen comment vous faites pour avoir les fonds et pour redistribuer les fonds xam nga Ligue sénégalaise euh, mi ngi ko commencé 2010 la jëkk def téléthon mhm. donc bi ñuy defee 2010 téléthon boobu chimiothérapie bi mi ngi woon cure bi 6 millions mhm. ñu jël ci 157 malades mhm. ñu dem a dem a dem ba amatuñu dërëm 2018 euh, ñu defaat téléthon ci euh, bi ñuy defaatee téléthon lol ah, ah, xaalisu sénégalais yi la. Mhm. Mhm. parce que suñu défé téléthon dañuy waxtaan ak askan bi. Mhm. euh ñu ñëw jàppale liska def ay promesses de don. may ñu bi ñu defee deuxième téléthon bi ñu jël 679 malades euh dix neuf malades. troisième téléthon bi ñu def nak euh dafa tombé dañ ko def rek quelques jours après mbass bi ñëw. euh ñi promesses yépp joxé wuñu mais nous avons plus de 363 malades qui nga été en charge mhm. ku nous ñu en charge le mhm. def euh, docteur bi lay faj mhm. mooy def résumé dossier médical su defee résumé dossier médical yow nga def sa demande manuscrite ak sa photocopie pièce d'identité nga déposé LISCA ñu ñu jël dossier bi jox ko assistante sociale yi nga xam ne ne ñoom itamit ay bénévole lañu. Mm-hmm. am nañu ñetti assistante sociale yu ñuy accompagner pour def enquête sociale bi. Mm-hmm. suñ ko defee ñu après nag comité bi réunir pour ñu statuer ci naka. Euh, la ñuy lay jël en charge. Mm-hmm. donc non les ñuy def loo leen am rek ci askan wi day dellu ci askan wi. dafay delluwaat ci askan wi. bañ nañ ko ba nga xam euh, compte téléthon bi mooy compte malade. dañu am ñaari compte compte ibué eh, ak mm. compte BOA ba compte BOA bi mooy compte téléthon mooy compte bi nga xam ne lépp li ñuy def ci jàppale malade foofu ngeen koy jël foofu lañ koy jëlee suñu compte euh, fonctionnement mooy beneen compte bi mm-hmm. loolu le ci la ñuy defee suñu fonctionnement def nañu plaidoyer ba nga xam ne 2017 euh, président de la République avons une subvention mmh. de 10 millions. Mmh. Mais ce n'est pas suffisant parce que nous avons un fonctionnement de 18 mmh. millions par an. Donc, l'olé bataille d'Esna. Nous, euh, Sénégalais, euh, et je suis fier de le dire, parce que nous, on, ne reçoit pas de fonds de l'étranger. Jusqu'à aujourd'hui, l'ILISCA a réalisé qui Sénégal, ci sénégalais le la jógee ñu dello leen ñukal dello askan bi ñukal mhm. parce que défar euh, défar nañu tabax nañu saalu chimiothérapie mhm. parce que sal ba fa nekkoon mhm. maladie pas ñett lañu daan tok pour def sa chimiothérapie pendant une heure nga ñëw tok ñett ci lal dafa metti ñu tabax benn sal défarat benen saal bi ñu défar euh, hospitalisation bu nga xamné né ku ko gis léegi ku fa daan dem soo ko gisee da ngay yaakaar yaa ngi ci euh, clinique hmm. mais yamuñu ci loolu le parce que jàppale malade jàppale malade da ngay yokk euh, médecin yi nga xam ne ne hmm. da nga leen di jàppale ci seen ay bourse hmm. parce que comme si chimiothérapeute yi bariwuñu woon euh, LISCA jox na benn bourse parce que suñu benn partenaire dañuy def plaidoyer mu joxal ñu benn médecin mu dem defi jàngi Euh, euh, oncologie Nous mhm. mm-hmm. tamit euh, fay nañu ay bourses ay inscription à des radiothérapeutes par ren la ñuy mm-hmm. donc ñi ñu jappalé yépp machallah ren lañuy paré. donc lool yépp dañu bëgg wane état bi naka la wara def parce que xalé yi docteur yi paré def 8 ans d'études faut ñu jàppale leen mm. pour dooleel leen ñu def ay spécialisation parce que soo amulee doole mais da dem continuer sa médecine générale. en tout cas euh, li nga wax am solo euh, euh, docteur Fatma Genoun, di fàttali ne émission Libido, c'est dañ ko spéciale spécial donc cancer malheureusement nag dañoo bëggoon gën parler de la a bi parce que comme nous ñu koy généralement nous avons waxtaanee rek dina am lu bëri lu ci rek mais aussi ñi fi ci ay mais malheureusement on est rattrapé par le temps mais peut-être avant de clôturer donc en en beauté et en cadeau comme on a l'habitude de le faire euh, ci émission Libidor dañuy remercier bu baax a baax suñu partenaire euh, bi nga xamante ni tey jii moom moo ñu jox ndox euh, bi naan muy waa CO CO au minéral Bon bu nga c'est une eau très légère au goût naturel damay dégg pas cher, yenn saa yi mu naan dafa zamzamé, mais dëgg la au CO donc mi nga xamante ni fii lañ ko defaree fii ci suñu réew am na ay format yu bëri 10 litres 4 litres 500 1 litre 50 cinquante millilitres trois cent cinquante millilitres bu la ci neex rek moom ngay rek daal di tànn maa ngi ko doon wax fii lañ ko produire euh, donc préférence euh, nationale mu nekk marque boo xamante ni dafay jàppale aussi jigéen ñi euh, surtout nag ci octobre rose bi ñu rek daal di nekk nee nañ waa SEO ñoom ñi ngi engagé wu mais aussi xam nga chaque fois bu ñu defee suñu événement yi ba pare suñu émission yi ah, moo tax dafa nekk ci événement yi dañuy am partenaire boo xamante ni moom mooy Faben Euh, Faben euh, cosmétique euh, mi nga xamante ni cuuraay yu baax lay def dama ko waxu octobre bi dafa ñëw méngoo ak li nga xamante ni moom mooy rek jamono daal di jagleel kon docteur Fatma Guenoune coffret bi nga xamante ni cuuraay la ànd électrique mi ngi ci biir mais aussi yenn di nga cuuraay waaw

pas de risque de y a pas de risque donc euh, docteur Gono ñëw yaa moom donc copain Fabel <laughs> pour geste euh, bi. voilà merci <laughs> beaucoup merci beaucoup dafa Mengo ak bi octobre oh, rose bi. Euh, effectivement <laughs> merci beaucoup. alors gis nga ginnaaw fa benn cadeau bi nga xamante ni jox na comme nous mu koy defee saa su ne lii nag docteur Fatma kenn ci ñun moo la ko jox muy Soukayna. Euh, su fekkee ne maanaam dañu ko damay am ah, damay am toujours plaisir di diko wax lolu euh mu nek nak ay produits cosmétiques euh, ci bir na ma seen ci benn euh, brodé ah. bi moom dama koy génne. brodé bu baax bo xamanteni néna pour euh pour dans le vax la waaw mais dafa brodé wee comme ni ñu koy rek euh, daal di waxee euh, voilà li ban genre tissu la. c'est spécial c'est spécial spécial ah donc spécial produit spécial euh, pour donc docteur Guénoune ak ay produits yi nga xamanteni peut-être Soukaina tu peux nous en parler. merci merci donc il y a les produits cosmétiques. Mhm. yo xamné le périphéral moo koy def. Mhm. parce que ñun on a notre propre marque de produits moi may wax pour les femmes. dañuy mhm. def papaye bi dañuy def laaj bi. dañuy ah, def carité. yooyu yëpp lañuy jël def ko am ay sponsor am ay euh, partenaires étrangers ñu jéem ko def euh, euh, en savon ak huile Voilà. en tout cas on va montrer les images euh, donc yi nga xamanteni euh, kon euh, indi ko pour euh, produit yi nga xamanteni mom moom Soukaina nekk suñu bokk suñu chroniqueur mi ngi ko rek daal docteur Guèye nak yi nga andal ñom ñep dinañu am ku ci nekk benn sachet bu nga xamanteni ni Soukaina mo len ko rek daal di offrir merci à toi ma grande pour la générosité mais surtout pour l'efficacité donc ci li nga indi vraiment merci amuñu sa fay aw mbay mhm. émission bi jeex malheureusement <laughs> <laughs> émission bi euh, jeex na jay na ba waaye octobre rose yi du fu jeex mhm. euh, ñuy ñaan yàlla di ko fekkee at mu jot at mu mhm. jot yàlla may ñu kàttan ak wér bu euh, ñu ci mën a liggéeyee bu ñu ci mënul daf suñu doolee daf si suñu alal ñu daf si suñu kàddu ngir jigéen ñi ci àdduna bi wërngal këpp rawatina Sénégal ñu fexe kon euh, bay euh, di dem di nemmeeku di teel a nemmeeku ndax looloo tax octobre rose ñëpp di wax dañoo bëgg jigéen ñi di teel a nemmeeku di dem xool seen yaram euh, bu ci feebar nekkee ñu teel leen a faj ñu mën a delluwaat ci seen i sago comme ni ko caane di defee. Mm-hmm. xam nga lii tamit dafay may courage mm-hmm. jigéen ñi. ñu doon nëbbatu ñu bañ a nëbbatu euh, dégg nga tamit ki dafa témoignage bi wax ne dañu dagg benn weenam waaye teewut jëkkëram jàppale na ko di wax ne tamit voilà di wax nag tamit euh, di rendre hommage aussi góor ñi ci octobre rose yi ndax jay na ba mm. docteur xam na si dara am na góor ñoo xamante ne ñooy gunge seeni jabar ñu dem faju ji am na doomi góor yoo xamante ne ñooy gunge seen yaay ñu mm. dem faju ji am na càmmiñ yoo xamante ne ñooy gunge seeni jigéen ñu dem faju ji daf ci seen alal daf ci seen doole daw leen euh, ba noppi di leen dëgëral ñooñu leen sargal euh, ci octobre rose bi ndax euh, feebaru jigéen la waaye itam yenn saa yi bu ci góor jàppee dafay gën a oyof mm. euh, di wax ne kon ba plateau bi neex na liñ ci waxtaanee am na njariñ kon lu fi ruusee yàlla nañu ñu di wax ne ba déwén incha allah yàlla may ñu talak fekkee di gërëm Aïcha Aïcha ñaa di jusqu'à nee na lii mooy participation nama ma ñëwal voilà ci octobre rose bi moom itam ñu koy gëreum euh diko santé di wax né euh, ki wéki la dafa wéki rek jox ma nee ko man bëgg na ci nama ma rek daal yow lo def ma def ko parce que tu es une femme brave mm-hmm. santé mom tay ji ni bu ko ñu bëri bëggee diko def ci yeneen radio ci yeneen télévision ci yow la ko gisee Awa mbay euh, donc euh, néna waxal nit baxam du wañ ci baxu keneen dara donc on te reconnaît tout ce que tu fais dans le métier tout ce que tu fais dans le métier du journalisme mm. tout ce que tu fais dans le service santé du groupe Futur Média nous wax santé fii ci réew de te le la tudd donc félicitations à toi et na euh, le nga ful bu baax a baax a baax lépp loo mébét ci sa santé nous les voyons madame santé donc mu fekk que la filet bob ñu ngi leen di soññati toppatoo seen wérgu yaram loolu mooy loolu moom euh, signature c'est important euh, dañuy top c'est un li nga ko parce que je me suis ko wax bien sûr sama premier plateau que j'ai beaucoup ci ma avec les plus grands professeurs ndax aussi domaine bi may évoluer muy environnement sécurité jeexital bi rek mooy askan bi très souvent impact yi foofu lañ koy fekk di wax rek euh, peut-être lui wax le changement de paradigme dafa jot man damay wax rek di conclure moom wax na ci santé man damay wax ci comportement attitude environnement bi dafa jot ñu xam ne dafa am lekk bu ñu war a suñu tout le monde est exposé man bi ma gëstoo la xam ne amatuñu que ce soit impact ci génétique impact si environnement ci sécurité alimentaire dafa jot ñun jigéen nous ñu xam ne caf yi cuuraay ak ñoom Sen, dafa am luñ koy utiliser ñu délu ci mbay bi di lek li nga xamné moy bio bi et et et li wax on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire bien les choses il suffit parfois juste d'être bien organisé pour régler des priorités di wax rek euh, di jaajëfal di wax c'était un honneur d'être présente sur ce plateau euh, di wax sama ki ma faral xam nga mom damay wa di sa tay mom ñemewu ma <laughs> limay faral di wax j'ai souvent l'habitude parfois de dessiner yo xam nga uh-huh. mais il va euh, chaque fois au-delà de mes attentes def création bu rafet bi ñu mën ko euh, au 77 595 35 58 77 595 35 58 Soleil Couture Petit tout Touba Sandaga au deuxième étage. Je mm. vous remercie beaucoup, Soleil Couture euh, pour toutes ces créations yu muy defal la Yacine waaw man lumay yok euh, madame euh, di remercier déjà madame euh, euh docteur. docteur Guenoune ba may ñëw fi vous savez j'ai un mari médecin. Mhm. daf ma né s'il te plaît sama me concerne fa fanek. déjà docteur moi choisir cadeau concert ah oui parce que mon mari est <laughs> médecin. mi ne ma ah ils se connaissent bi ne ma beneen bi dimbali ma rek. Merci xamoo si dara donc xamal looy wax <laughs> ki nga nekkal bëgg mën a donc moo tax j'ai fait très attention de sorte que euh, lu ma si yokk rek daal mooy euh, côté entrepreneuriat bi mhm. côté lu may wax euh, docteur mooy hôpital bi hôpital bi c'est c'est un projet boo xam ne vraiment war ngeen si gëstu c'est très facile accompagner l'État et surtout lu may waxtaan dañ si waxtaanaat plus tard xam partenariat bi dina si gën euh, de nous continuer moyen, euh, ngay participer dans les conférences internationales mm-hmm. il faut participer dans ces conférences moi je fais beaucoup de conférences internationales de sorte que l'ambulance, yi nga ñun les les les machines échographiques les ñuy Avec ak mammographie partenaires il mm-hmm. faut aller dans ces conférences De les naa dans la hors antenne gën la ci boole ñaar après nga <laughs> ci yoon. d'accord on te remercie beaucoup euh, Soukaina toujours un plaisir euh, donc de te retrouver ces plateau Mais merci pour euh, les cadeaux merci pour la déco jàpp nga ci lépp yow da nga wane né ñëwoo rek pour def participer ces émissions. mais nag ci tax donc merci à toi pour cette générosité docteur. Euh, merci Dieynaba de m'avoir invité <laughs> mhm. vraiment c'est un euh, plateau agréable mhm. parce que liñ fi de mhm. dafa am solo. Je ngi remercier remercie ma plateau bi parce que je naa ci ñoom. Euh, ñoom euh, pour askan vraiment merci Awa merci Yassine Merci Soukaina et merci, un grand merci à toi de m'avoir invité. Non, merci euh, donc docteur Gonon, surtout. Awa Mbaye moom moo jox ce numéro mais il y a retour et ko benn mais surtout oui bien sûr on va remercier euh, donc euh, euh, l'équipe donc bi et ci ça c'est <laughs> voilà c'est évident parce que on a beaucoup fatigué ki nga xamante monsieur Diop seen chargé de com mais mhm. aussi madame Meng merci merci yéen ñëpp équipe donc Waliska. LISCA on vous fait donc de gros gros bisous ci ngeen téye la bu mhm. surtout ci jàppale bi ngeen di jàppale et on vous encourage euh, donc à aller de l'avant Je euh, mhm. remercie aussi équipe technique qui Contiguina. Moi aussi, c'est euh, merci à toi Boubendour, Ndour mi nga produire donc euh, émission bi merci euh, à lui pour la confiance mais aussi à Aïsata, Aïssata si mi jàpp kon si émission bu baax a baax sonal naa merci à toi au caméraman yéen mais tey damay def mention spéciale à Awa bu Ruby création Nous ñoo solal tissu bi nga xamante ni chantum la ñu génne ci ay création yu yu rafet ñu ci 77 644 03 73 mais aussi à Chic Face pour la mise en beauté merci de nous avoir suivis et au mois prochain pour un autre sujet femme, pour une autre femme, toujours euh, leader dans son domaine. Nous avons toujours ay thèmes société yu leen di jariñ aussi dañu jariñ ñu tamit jaa ngeen société.